yeneen teraanga yi ñëw na. ak jullikaay bi. yàlla yàlla sëriñ Tuubaa jàmbale. ñu ngi ko foto nga ma waaw ki ngeen fi mu jox la ko. waaw nee na Mor. Mor Ndiaye waaw ah, Mor bi ma ko yëg Mor dafa am bëggul feeñ. yow bu leen ko jël. mën nañu laa ba sa loxo yi rek lay jël. sama fan la yow waaw yow bu leen ko jël. li mën na sëkk. waaw ah, Modou gis nga ni Modou sëñ bi nga jox digal mu jox ma ji. waaw Modou xëy la ko sëñ bi batale mu indil la ko. muy kontaan lool. waaw. ndax kon ci kër gi moom ni ñu leen yàggee. Hmm. ak taal gi ñu doon. dara yi bëgg dara yi fësal waaye tey man maay fësal. dëgg la ndax euh, lii rëy na. kaamil mhm. ak kurus dama ko fonk fonk ba mu lépp laa jël dund. ndeysaan. Modou xëy nag wax dëgg yàlla nekk sama wala jege sëñ bi lool. ndeysaan di ko sant di ko gërëm. dëgg la. di ko ñaanal yàlla ci yoonu Mouride lépp luñ jublu yàlla ko suñu doon defal. amiin di ñaanal sëñ Amsatou Mbacke mu yàgg lool. amiin amiin lii rëy ci man nekk na loo xamante ne wax dëgg yàlla xalaatuma ko. dëgg la moom naa dund ba dee te doo ko am. dëgg la naa dund ba dee te doo gis. dëgg la waaye boo bëggee Serigne mhm. moo dàq milliard. dëgg la boo bëggee Serigne Touba mhm. moo gën lépp loo mën a am dëgg la kon nag maa ngi sant Serigne Touba bu wér. man benn question laa la bëgg a laaj ba pare Serigne Touba benn question laa la bëgg a laaj nga ñu safar ba pare. Mhm. tëj safar gi rek lii am. lii daal mooy Serigne Touba nangu na ñu liggéey ñun. waaw wane na rek Serigne Touba mu tànk ginnaaw. mooy li ma koy faral di waxee chaque jour. Euh, safar bi ñu bëri yaakaaroon nañ ñu du am. ñu ko defal samay xarit sax ma ne barke Serigne Touba. Mhm. gisuma luy tey ama galam gisuma tey lu safara am. dëgg la ndax lépp ci àdduna. Mhm. yëg-yëg la. am mhm. gëm-gëm. wala li ki ñu koy waxee rek jubal. leeral dëggal. dëgg la yàgg nga ko wax baat boo miin la Satu Mbàkke daal na yàlla nga fi yàgg Mbàkke yàlla na fi yàgg. sëñ Satu yàlla na fi yàgg teewul sëñ Satu yàlla na fi yàgg teewul Merci.